ci bés bu ku la tooñoon nanga ko baal man dinaa wuy bis bi mag la bis mag la waaw man fonk naa leen sa bi nga gën a fonk sol waaw ngir màggal bés bi ay dë Coulibaly Sidy Youssou Ndour waaw du yàq bés bi wax jooju moom. Ndiaye yow ci jëmmum yaa jéemul dara. Hmm. jàppal ni tabaski ren gii nag duma la may dara. su hmm. wax jooju yow tàng nga di. Ndiaye la wax. bu 18h jotee daal nga fottu boo génnee indaa say wax. duma ci waxaat de tabaski gi daal duma la may dara. Hmm. waaw léegi baax ah, mu fottu bu génnee indaa la jigéen ñi ko doon yaroo boo leen muñalul. wallaay ci divorce ngay dëkk divorce loolu mooy njaboot gu tas yaa ngi may parooga rek de waaye ngelaw li moom bëri na di ah ajaratu hmm. ah tey de nii laa def ah, ah, de de jamono yi mu ndongoloo génnee modèle bi ah, ci laa ko ñëwee woon de bii de ndongoloo lañ koy wax ndongoloo bii de ndongoloo la ah tabaski nag nuñ ci def ah war naa xeetu booy yi laa gëj a dégg kon yi moo xew léegi. waaw. <laughs> Ah. gis nga de jamono dee dox waaye bee boobu nga wax de. Hmm. ah sàllaaw doo ko rëccu de. tabaski bii da ci dund loo xamante ni. Hmm. ah mosoo dund. Ah, kon gaawala sa loxo. waaw. gaawala sa loxo de nga maam. am na xaalis bu may séentu fan yi hmm. bu soobee yàlla wax ma rek wax ma yow loo bëgg ci tabaski bi rek wax ma bul bàyyi dara xar sax ren maa koy jënd jox la ko xar. ah bi neex na. ah <laughs> gisoo gisoo xaalis bi waaj ñëw. Ah. waaw laalaat naa beneen cartable sax. gisoo <laughs> bii waaw mooy bu génn mujjee génn xam naa. waxal li nga soxla. man. Hmm. tabaski bi nag xam naa li ma soxla moom moo tàmbali. naa war naa sañse def yu xew yooyu noonu. ah waaw yooyu noonu. waaw yéen yi da ngeen waaw jënd or tamit. naa war a sañse or. or mel ni. Mhm. tamit. ak mhm. bul wax dara yow bëggal rek. bëggal demal demal waxal xaalis laa lay jox dégg nga maam ren. Mhm. aw quatre cent mille laa teg ko sa loxo nga dem marché tasaareel. loo gis jëndal bul bàyyi dara. incha allah jëndal des na ci yow joxe rek defal ba defal waa koñ. Ah, ndax nag sama ñàkk gi hmm. moo tax sama jabar yëpp hmm. comme nag commencé naa am. waaw dégg nga maam. Hmm. dama lay jox quatre cent mille nga def ci tabaski bi. tabaski bi jàll. waaw ma indi goro eh, takk la. <laughs> ah ah waaw ba tey ba tey waaw ba tey ba tey moom loo wax rek ndax li may dégg moom ah. daanu ma ko dégg bee ah, <laughs> bee <laughs> ah, tawal <laughs> ci gën moom ah carnet la bu dee deux bind maa jege koñ bi li ñu lebale bëriwul de deux cent cinquante yi bëri na sa carnet bi léegi euh, Baye Cheikh Mahmoud xalliwu sama doom bi pour lan ko lim nag xamoo fu ma jëm nday Absa général général moom bokku ci sax waaye faaw nu boole ko léegi ñaara ngay soxla woo lépp lépp ci tabaski ren. xam mbaa xam ne 400000 du ma ko du ko paase ak yow. 400000 pareel. xar mi xar mi bokku ci 400000 xar yi xar mi xar mi bokku ci. xar mi bokku ci 400000 waaw dinaa Mm-hmm. yow mi waaw yaa ma jox 400. pourquoi ça gëmoo ma. maa ngi koy xaar ba keroog ma koy gis. pourtant jantal paa a te yor naa xaalis tabaski ren gi nga koy xam. nijaay bu wàll buñ ma la saraxul woon doo am. xamoo takkee suñu sëy mën naa bañ a jib. en tout cas maa ngi sëy maa ngi njabootu ni ñu ko takkee moom mënoon naa bañ a jib. maa ngi njabootu de xaaral ma woo xaaral ma woo général man ku ma yeb général waaye yow génn fii. allo waaw waaw en général la nga waxoon foo ci toll ah c'est confirmé. la ilaha illallah. màggal bés bi jaadu def sañ se ziyaare ji seeti samay nit ñu baax neex bal ma àq bal na